képp ku bëgg a nekk jullit. te képp ku bëgg a nekk jullit. na nga bëri nga xam. na nga bëri nga xam lii lislaam. nga xam lii lislaam. te lislaam alxuraan rek lañ ko xamee. te lislaam ci alxuraan rek lañ ko xamee. téere bi nga xam ne. téere bi nga xam ne. téere ñu ngi fi wuti ko topp lislaam na fi. téere ñu ngi fi wuti ko topp lislaam na fi. moo di alxuraan. moo di alxuraan. te noonu lislaam yi xam nañ ko. te noonu kat loolu lislaam bi xam nañu ko. moo tax ba téeméeri atam nga. looloo tax téeméeri xatam yi. ñu ngi tëral ko façon jàng yoo xam ne dañ ko génne alxuraan. ñu ngi tëral façon jàng yoo xam ne dañ koy génne alxuraan. ndax xale bu wattu alxuraan. ndax dana ba wattu alxuraan. ba dafa dégg waaram. bëri ba dégg waaram. kenn mën loo di kenn mënu koo doxloo lu dul yàlla muy yàlla. kenn mënu koo doxloo mooy yàlla. kenn mënu koo doxloo lu dul yàlla muy yàlla. kenn mënu koo doxloo lu dul yàlla muy yàlla. loolu moo tax am na seexu angale boo xam ne. ba mu war a àdduna yëpp. ba mu war a àdduna fa dajal. ba ñibbi. ba ñibbi lan lan. ndax leen a dajale. dafa dajale maanaam lan lan. saawi lañ ci loxoom. fekk maanaam moom moomu saawi lañ ci loxoom. mu yëkkati ko. mu yëkkati saawi ba nii. nga leen téere bu lee. nga leen gis ne téere bii la nga. ak néeg bala ca nekk. ak néeg bala ca nekk. toog ñu ci àdduna. toog ñu ci àdduna. ñun duñ fa am taxawaay. ñun duñ fa am mukk ab taxawaay. nañ xeex ak waar yi ci lépp lu ngeen ci doole. nañ xeex ak waar yooyu ci lépp lu ngeen ci doole jëlee leen ci. ba buñ jàngati téere bi buñ jàngati jël. ba buñ bii buñ jàngati jël yëpp boole. ñu ngi xam ne dañ siy firnde. di wax noonu xam ne dañ siy firnde. na ngeen ba dëgg xale yi nañu waxtu alxuraan. nañ ba dëgg xale yi waxtu alxuraan. góorgóorlu ba dégg waaram. góorgóorlu ba dégg waaram. li xam-xam gàtt gàtt daal naa bu ko. xam-xam bi gàtt gàtt. jamono yi ñu nekk. te jamono bii mu ne. yaram yi sax buñ jàng duñ dégg yaram. yaram yi sax buñ jàng duñ dégg yaram. te yaram yu bari. te yaram yu bari. daw nañ ko alxuraan. daw nañ ko alxuraan. daw nañ ko sax lislaam. daw nañ ko sax lislaam gàtt gàtt bi. damay wax te ci te dama ne ci réew mi. damay wax ci bu nekk ci réew mi. man dama gis ci lislaam nekk ci lislaam léegi. man dama gis ci ndekkital lislaam léegi. fii laa ko gis ak ci gànnaar. fii laa ko gis. ak gannaaw. kon nag nañ ci joxale bu baax a baax. kon nag ñun ñu yàlla sotee loolu nañ ci joxale bu baax a baax. ñoo ñoo ñu leen ñu. ñoo ñoo ñu leen di loolu bi di ñooroon ñu. ñoom bàyyi nañu ko ñoom dem nañu. ñoom bàyyi nañu ñu ko dem nañu. ñu nag nañ ci jàpp bu baax. kon nag ñun nañ ci jàpp bu baax a baax. ñoo nga roy Europe. ñoo nga roy Europe. ñoo nga roy Moscou. ñoo nga roy Moscou. waaw yonent wala moom moom kenn rawatu ko. waaw yonent yàlla Muhammad moom kenn rawatu ko sallallahu alayhi wa sallam ñu woote lislaam yëpp di àtte seen bopp. ñu woote lislaam yëpp di àtte seen bopp. ñu woote lislaam yëpp di àtte seen bopp. ñu woote lislaam yëpp di àtte seen bopp. waxuma lépp ñëpp laa wax ñu woote lislaam ñëpp. ñu woote lislaam ñëpp di àtte seen bopp. àtte tubaab rek la ñu woote. àtte tubaab rek la ñu woote. àtte lislaam la ñu woote. buñ doon jullit àtte lislaam la ñu woote. war na yàlla fekk ni mbir mi. war na yàlla fekk ni mbir mi. dama ko mbir ma ko ma rafet. ko ci nit ñi dara ko. yal na yàlla dimbale diine l'islam. yal na yàlla dimbale diine l'islam. yal na yàlla dimbale diine l'islam. yal na yàlla dimbale diine l'islam. yal na yàlla dimbale diine l'islam. yal na yàlla dimbale diine l'islam. yal na yàlla xéewal xaatu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yal na yàlla xéewal xaatu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yal na yàlla xattula xaatu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yal na yàlla xattula xaatu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yàlla mën na loolu war na ko doon. yàlla mën na loolu yàlla ko def